salaam sama gars yi noo leen def tey nag dam leen indil benn concept bu bees tàq bu jéggi dayoo ànd ak Amadou Ba épisode bu njëkk bi mu ngi tudd Jibeer ah mu fëgg bokk. oui. bonjour monsieur le premier ministre. bonjour na ngeen def. ñu ngi fi ça va. ça va très bien et vous. alhamdulilah. lan mooy programme bu today mais mën nga wax Amadou rek moo gën a kii. Amadou Ba lañ ngay def saa yoo yeewoo. bu mu jullee ba pare daal ndékki lay def ndékki kenkeliba. alors tey jii nii sa doom boo leen tiimee lan ngay yëg. ñaanal leen parce que ñu ngi ci àdduna bu jafe. donc euh, boo juree doom da koy yar bés bu nekk war nga koo seetlu xool lu mu fanaanee démb la ngay gis ci moom ndax boo dee mag bi nga mën a seetlu. ban livre nga mujjee lire. j'aime bien lire Cheikh Anta. liggéey H24 est-ce que di am ay activités ak sa waa kër. bareetul malheureusement bareetul c'est des choses qu'on peut regretter parce que yenn saa doo gis say doom ñuy màgg wala nga jàppee leen xale fekk màgg nañu. moo tax chaque fois moo leen gisee surtout suba bi balaa ñuy dem dama leen di xool bu baax a baax a baax doog dem bu ma liggéey en général bu may ñëw di fekk ñu tëdd. costume cravate wala yére wolof. liggéey bi en général costume cravate vendredi laay sol yére wolof. wala bu mu amee activité boo xamante ni dafa costume ak cravate mën na bañ a euh, dëppoog moom. sa daal yi rafet nañ de. fii lañ ko defaree. made in Sénégal. made in Sénégal li ma sol yëpp fii lañ ko fii lañ ko ñëwee fii lañ ko defaree. est-ce que di nga faral dawalal sa bopp xam naa ne ñu ngi dem parcelle de. mais li may dawalal sa bopp moo ëpp moom moo ëpp xëy na léegi rek lañ ma euh, sécurité bi di. imposé ànd ak man ak yu mel noonu mais souvent j'aime bien être avec un ami. tey nag ñooy sa ami du jour. bisimilah. voilà. kale ngeen xool. ñu ñëw xool bâtiment bi. waaw ba tey kale. ñu ngi topp de. ah ñu ñëw la ñu dem. lan moo tax nga décidé tabax ko. en fait biñ koy euh, xam nga fii ni ñuy defaree jumaa yi. dañuy cotiser di di di di contribuer finalement day yàgg bu yàggee aussi souvent mën na am ay ay vices ay défauts mu dem nag ba benn jamono ñu wax ma ni jumaa ji mën na daanu. bi ma yónnee fii nit ñu waroon ko réparer ñu ne ma li ci yàqu ak ni mu bindoo defaraat ko moo gën a yomb donc on a décidé de raser et de reprendre les constructions. góor xam naa nañ def ni ñu kër ga rek jam eh, ah, eh, eh. xam nga xam nga booy yi ñoom waaw dañ ma nenn quoi daa mel ni xaritu booy yi nga de chaque dimanche yu ñëw am compétition te amuñu lu ñu am coupe dañ leen di gagné bés bu nekk dañ leen di gagné bés bu nekk yéen non nga ne salaamaaleykum ça va ça va bien tous les dimanches c'est comme ça chaque fois ma fi jaaree moom y a un attroupement monstre avec les jeunes du quartier dimanche bu nekk fii lay ñëw. Euh, toog fii fii lay recevoir samay audience sama néegu yaay la woon. lan la lay waaw mais moment yi ma doon toog fii fekk sama yaay mu toog fii tëdd ci lal bi fii toog di waxtaan. chaque fois que je reviens ici c'est comme si c'était hier. Mon père est décédé il y a 21 euh, ans maintenant il est décédé en mag ñi ma doon àndal ñi ci des ba tey jii tous les dimanches fii la ñuy reeree ci kër gi. tous les vendredis fii la ñuy añee donc ni ñu daan def ak sama waajur bu di vendredi bu ñu jullee ba pare ñëw toog fii wala dimanche ci guddi ñuy ñëw toog fii wàccee kaamil euh, ñaan ñi ci des ba tey ñu ngi koy def. ban souvenir moo la gën a marqué ci sa ay waajur. mais y en a comme xale bu nekk ak yàgg say waajur li ngeen di dund day bëri. moi je fii fils aîné donc samay rakk daanaka man maa leen war a yar donc la pression. ci man lañ ko doon exercer parce que dañuy jàpp ni yow ni nga mel noonu la ñeneen ñi di ma ñuy ñaan yàlla say waajur fi nekk gënal leen fi ñu jógee. amiin amiin amiin fi nekk nga foog ne instant yi war neen kontaan quand même ci seen doom. je pense en tout cas maa ngi jéem je pense xam nga nag nit ki moom du yaay apprécier sa bopp tu laisses les autres le soin de dire. Amadou ku am kóllëre la ku am kóllëre la man euh, en cinquante ans. mosuma ko dégg mu wax wax bu tegginuwul ndax ma jaaxal ma mësuma ko dégg mu wax wax bu ñaaw. Amadou Ba jàpp ne nit ku dal parce que dal dafa dafa baax nit aussi bu bu am pondération. ensuite ku ku engagé la c'est-à-dire que loo ko dénk dina ci dem comme ni xale yi di wax léegi dina ci dem ba jeex. yàlla it defal na ko koo xamante ni ku mën a déglu la. te noppi amul benn sénégalais tey boo xamante ni mën na ni Amadou mii kat dégg naa ci moom kàddu bu jóge ci man wala bu ñaaw kon nag ci taxawaay boobu ak melokaan boobu wane nañ ni tey ni Macky Sall juumul. Amadou jikko yi ñu nawloo ci moom c'est quelqu'un qui est généreux quelqu'un qui est pieux nit ku loyal nit ku am yax ku njaboote te qui a sens de l'écoute. Amadou dafa. nekk nit koo xam ne euh, waxam bariwul te jëf lu bari mu nekk liggéeykat mu nekk koo xam ne dafa bëgg réewam gëm réewam fonk réewam xam luy administration. ban anecdote nga ñu mën a nettali ci Amadou Ba. dañu am chance man ak moom ñoo ne ensemble depuis l'université de Dakar et puis euh, admindoo ENAM même année bokk section impôts et domaines bu ñu nekkee bu ñu nekkee ENAM di jàng. Amadou minuit lay taal ataaya di wër di wër ku mu ko ku mu ko naanandool ku mu fëgg nga ne ko noonu mën daal sa waay damay nelaw nañu bàyyi bu suba weer nañ. waaw question bi ma lay laaj balaa ngaa dem. ndax jàng nga daara. jàng naa ci tuuti de. comme ban saar moo gën a sax sa xol. Ikhlaas ndax ni ci yàlla di définir boppam. di nga déglu musique. oui oui. qui c'est chanteur préféré. Oh, damay déglu tous les presque tous les chanteurs sénégalais que ce soit Youssou Ndour que ce soit Baaba Maal Ismaël Lo Omar Pène. et, et maintenant les plus jeunes quand même Pape Diouf je l'écoute euh, beaucoup. tey jii nii lan may la meilleure façon de répondre aux critiques. c'est d'écouter de les prendre et d'apporter des éléments de réponse. Tambooy lan nga gënoon préféré def. j'aimais beaucoup la lecture lire les aventures à part ça ouais, j'étais toujours dans un groupe hein, toujours entouré je m'occupais plus de l'organisation bu ma laaj ndax mënoon naa football ayuma mënoon naa nag mais ayuma woon. tout souvent dama doon jouer latéral au six ou demi-centre. daaw loolu ñoo bëggoon. non non mënu ayu woon kii moo doon góolu waa ji toog fi borom sikkim boobu moo doon moo doon góolu ko alors tey jii nii ban valeur moo la gën a neex ci Sénégal. bokk bi ñu bokk saa bi ma ñu bu ñu demee léegi parcelle quand tu vois tous ces jeunes venir euh, jóge ci kër yu wute mais ñoom ñëpp lu leen boole c'est d'être jeune c'est plus d'être des Sénégalais en fait loolu bokk na ci yi nga xam ni. valeurs yi nga xam ne mu bëgg toujours ñu di ko cultiver di ko jëmale kanam parce que moom mooy avenir u réew lan ngay diggee jeune bi nga xamante ne dafa toll si buntu àddina muñ tey sa dikk dire que yàkkamti moom mooy adversaire u jeune maintenant ñun ñëpp naturellement dañuy bëgg yàkkamti bëgg a am bëgg def lii lu ne nga bëgg ko def mais foog nga ne tekk xool lan lan nga yow lan moo nekk ci yow sa potentiel d'abord faut nga mën di ko évaluer sa bopp en écoutant les autres après tu tu avances résolument maintenant muñ ça peut être difficile saa nga jéem du jàll mais bul décourager da ngay pousse toujours. Eggat wala lance ñaar yëpp sa lu nekk ak jamono <laughs> Eggat boo nekkee xale boo ne gënee nekk ndaw lance-pierre boo commencé peut-être dem jàng rëbb ak yu mel noonu. gaucher wala droitier. les deux à la fois parce que je suis né gaucher mais léegi dañ ma transformé ba je suis donc euh, li ma mën ci droit bi bariwul à part lekk ak naan ak bind waaye li ci des yëpp gauche laa koy defee. alors monsieur Amadou Ba. waaw wala man waxaat premier ministre. waxal Amadou Ba moo gën. merci beaucoup. noo gisal suñu xaritoo tey. neex na waaye nag. Euh, dugal ngeen ma ci yoo xamante ne dama foogoon ni dootuma ko waxat dootuma ko waxat. loolu nag lañ ci bëggoon jërëjëf. jërëjëf merci vraiment merci j'étais très content. touché man la leen sant di leen gërëm.